dinañ voté ce ce projet de loi bi dinañ ko voté, mais ce n'est pas ça le problème marocain yi fi jóge ñom ñëpp am nañ souf fi Sénégal américain yi fi ñëw ñom ñëpp am nañ souf Sénégal français yi la même chose belge yi la même chose chinois yi la même chose adina bi yëpp am nañ souf Sénégal mais le Maroc ba Sénégalais ndax Sénégal a 1 un millimètre carré ndax Sénégal yi a un millimètre carré Belgique ndax Sénégalais ont a un millimètre carré France voté mais le problème moi, 12 ans j'ai l'impression que c'est trop tard document depuis deux ans document yi fi ñëw ngeen tuddu fi coronavirus coronavirus monsieur le ministre li may wax dala dépassé dafa dépassé sa département dafa dépassé yow bi nga ñëwee fii dafa am jangoro bi ngëpp Sénégal corona souf mbour taxat taxat nañ souf bi ba mu jeex tak refisque taxat taxat nañ souf bi ba mu jeex tàkk Ziguinchor la même chose Kafrine, la même chose. Kaulak la même chose. Saint-Louis, la même chose. Dakar, waxi Tchakat, tchakat, tchakat, dañ de mu tak. tàkk léegi regle, lu muy régler ci li ñu jot def pare corniche baa ngi corniche bi lu ñu koy def waa APR une Benno Bokk nañ corniche bi ba suñuy suñuy nous duñu gis waaw waa APR ak waa Benno Bokk Yaakaar maa ko wax tabax yi nga xam ne moo nekk ci corniche bi te ñun ñëpp xam nañ ne s'en respecte pas la loi luñ koy def monsieur le ministre fii la ñu wax aéroport yéen a ko séddoo aéroport yéen wa APR yéen a ko séddoo yéen yéen waa APR ak Benno Bokk Yaakaar yéen a séddoo APR yéen a séddoo aéroport bi monsieur le ministre problème honte aux députés qui rient pendant que le peuple sénégalais souffre honte aux députés qui rient pendant que le peuple sénégalais souffre honte aux députés qui rient pendant que le peuple sénégalais souffre lii qui corona souffre Sénégal depuis 2012 président Macky Sall defu tous mu deux mois avant élection présidentielle dans ay code de construction code de l'urbanisme nous, Akimo, géej Akimo, funek, fu kawon, Akimo, kawoon Akimo, aéroport même cimetière fu am jardin ngeen aakimoo fu ñu wara tabax école ak juma ak mais c'est ça la vérité nous allons voter effectivement amul problème mais monsieur le ministre la naa na ministre des finances ce matin dama la kay lacc yow mour 4 400 hectares déclassés ay ministre qui député qui qui packs, qui packs, qui qui 50 packs. monsieur le ministre est-ce que vous nga ma indil ay monsieur le ministre ce qui nous ñu Ousmane Sonko suñu candidat ndaxte 15 ans impôts et domaine amul un mètre carré pour mu luubal Ce qui Ousmane Sonko que suñu candidat li Ousmane Sonko que le candidat du peuple sénégalais Li effectivement nous fascinons le président Ousmane Sonko au palais présidentiel mu le cinquième président de la République du Sénégal mu neex mu parce que sénégalais yi dañoo bëgg a ci corona Souf, dañoo bëgg a ci sàccum souf bi dañoo bëgg a ci sàccum khalis bi dañoo bëgg a ci détournement yi sénégalais yi dañoo sonn ci lolu motax ñu Ousmane Sonko oui avec Ousmane Sonko, nous allons changer les choses. Oh yeah, oh yeah, yeah. c'est le combat de la liberté. Le point levé, nous sommes tous debout pour le combat de la liberté. Oh yeah, oh yeah, yeah. c'est le combat de la liberté. Le poing levé, nous sommes tous debout pour le combat.